mbega na mayoniro xam nga oh. Refa. ¿Qué? Hola, Refa. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV gannaaw ba ñu amee mbégte ak contentement ci ànd bi ñuy ànd ak yenn dañ leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal tey nag gis ngeen euh, dañu seet si champion le géant di Bawol di mbër ma nga xamante ne bii nekkatul ku ñuy présenté ci làmb ji fii ci Sénégal euh, ñu seet si ko fa yéene sekk ak moom waxtaan mbër nuyu naa la. waa asalaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di la nuyu Mbaye Babacar di nuyu équipe bi nga àndal yëpp di nuyu waa Leewtoo di nuyu média bi yëpp ah di nuyu monde làmb xam nga ak képp kuy bëggee lam daal ak bépp sportif maa ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi sama coach Mohamed euh, nga xam ne mu may teg ci yoon waaw yàgg na ak coach yi nekk ci salle bi yëpp ñoom Titi Baba euh, ak euh, ñoom Malick ñëpp. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu suma frère yi tey yi ma nga xam ne moom laa àndal muy Ndiaye Tine ak mbay Guy gi nga xam ne toujours ñu ngi liggéey ensemble ak champion yi nekk Bawol yëpp ak écrit yëpp di nuyu suma staff aussi muy Papa Thioune ak Elas Thioune nga xam ne chaque jour ñu ngi may teg ci yoon di nuyu aussi suma famille yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu waa Medina bi ah. jaajëf si yëpp jaajëf champion ñu gis euh, Tapha Tine presque deux saisons yi deux saisons yi passé euh, euh, amul combat lan moo ko waral adversaire yi ñoo nanguwul a bëri ak Tapha Tine wala Tapha moo amoon lu mu lu mu doon xaar. waaw mais boobu ba léegi janvier 2018 laa géej segg sama combat contre Yékini Junior mais ba léegi démarches yi daw. Mhm. xam nga boole nañu fi ay mbëru mbër xëj na yéen coolul dégg ngeen ko gis ngeen fa mu mujjee xam nga ne lu ñuy wax wax nañ ci xam néewlu woon ci man xam nga kon lépp dañ koy sant yàlla daal te xam ne xam nga lu warul ñëw gaa yi ñoo doon daw quoi. non du daw quoi du daw du question ne daw la wala lii xëj na sport la sport business la boo xam ne ni xam nga kenn ku ne da ngay xool li la arrange rek loolu bokk na ci liy tardé combat yi xaaral waxtaan ak kii waxtaan ak kee yi dañ la ci dugal ñii dina ci génne. waaw business su lamb daal noonu lay demee quoi wax dëgg yàlla. Hmm, janvier 2018 la ñu géej bëre sant yàlla. am nañu fi combat ñu ngi préparé suñu combat loolu la yàlla dogal quoi. wax nga ko sànq jël nga avance lekk nga avance mu dox sa diggante ak euh, Boy Niang mi nga xamante ne bii moo nekk fële ca Pikine te Pape Thialis fay tëgg ko euh, ñu bëggoon rek nga wax ñu foo toll ci préparation bi tey ñu ñëw fekk la ci salle bi euh, mu mel ni lin lin lin doon ñëw tey moo tax nga tàngal wala ni ngay dikk ni ngay ni ngay entraîner chaque jour. waa en fait damay nuyu Pape aussi waaw suma la. ñu ngi déggante lu bari sama combat passé moo ko tegoon kon tey bu ñëwee tegaat sama combat mënuma di ko jaajëfal daal di nuyu promoteur yëpp nag seen doyen muy Gaston maa ngi koy nuyu bu baax temps yi dégg naa ko muy kaas benn la muy kaas c'est bien vrai dégg la mooy émission bi ñu defoon ak Pape Cheikh Diallo xam nga bien vrai que bëri lu ñu fa turu promoteurs yi noonu noon mais sa normal mu kaas ko quoi man bu ma ko déggee laa ne vraiment wax na dëgg. dafa bëggoon ngeen tudd leen. non c'est normal parce ñoom ñooy bailleurs yi ñoom ñooy def xaalis si ñun. kon c'est normal bu ñu toogee ñu jàllale message bu jëm ci ñoom. parce que lii di mbas mi nii ñoom la gën a laal parce que ñoom ñoo yëkkati seen moo leen def ko ci ñun doon tax xam nga joxuñu carrément li ñu war a joxe. Mhm. xam nga mais am na xaalis boo xam ne def nañ ko ñun ñun tam ñu ngi toog di xaar. Mhm. kon c'est normal maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu seen président Abdou Fall ñoom Dieye Sène xam nga sama gars yi ñoom falu Ndiaye Assane Ndiaye sama mbokki bawol bawol yooyu ak ñoom kañ yi yëpp maa ngi leen di nuyu. préparation bi sa combat ak Capa euh, gi. waaw combat la ah combat comme yëpp. Tafatine moom yaakaar naa saan bu ne bëree na ko fi. Mhm. am na ko fi. Mhm. kon yaakaar naa du benn effectivement wala combat buy jaaxal Tafatine mhm. bu toogee bu combat di ko jaaxal wala mu koy indi benn jafe-jafe. mu dem ci tool yi reefam yee dem béy parce que tool yi yaatu na lool waaw noonu la demee mhm. amul benn préparation bu particulier par rapport ak euh, sa combat yi jàll non xam nga combat bu ne ak ni nga koy paree quoi bu laajee nga vaase da ngay sante ne ci ni lay préparer rek ni ñu bëgg na nii la bëgg sa yaram mel après yow nga xool ngeen mm-hmm. toog waxtaan ci combat bu ne ak nañ koy pare kii lourd la nii lañ koy pare kii lese la nii lañ koy pare mm-hmm. kii dafa gaaw nii lañ koy pare kii dafa yéex nii lañ koy pare ça ne ñu gis ne bi nga mujjee dugg Pikine neex la woo mm-hmm. sa diggante ak euh, Ama Baldé la woon euh, nga bëgg a duggaat Pikine est-ce que du risque non bëree amul risque lépp risque la lekk sax risque la sport lañ def comprendre la ñaata yoon ñaata mbir laa daan Pikine bëri nañ kon bu ma fa dugaatee damay ñaan yàlla yàlla may mu ndam kon daal euh, fi mu toll nii amul lenn la nga xamante ne bii euh, euh, jaaxal na la biir Pikine non ñaata yoon laa fa dugg bëri na am naa fa cinq victoire xaw ma quatre <laughs> sport noonu la léegi ñu gis conférence de presse bi nga xamante ne bii booy Niang mi ngi ko doon def invité mbër yëpp mm-hmm. gisuñu la fa lan moo ko waral yaa ngi da nga doon sóor mystique bi wala lan moo tax dama wuyu jiwoo ci conférence boobu. waaw mooy li lay wax rek tey def naa quinze wala quatre wala seize ans de carrière. kon hmm. làmb loolu ñuy wax expérience am naa ko gisatuma lu ma ciy jaaxal boobu. Hmm. du dara. Hmm. woo na ma wax dëgg yàlla wax ma ko. woo na la téléphone wax la ko. waaw wax dëgg yàlla. te mais boobu xam nga. am na leneen lu ma préparé woon quoi. bi mu la woowee da nga ko dinaa ñëw wala. remercier ko ma ne ko jërëjëf booy li nga def rafet na kon bu subaak jam incha allah. Mm-hmm. waaw noonu la demee daal wax dëgg yàlla woo na ma xam nga ma gis ko nag rafetlu ko. Mm-hmm. parce que ubbi na benn fenêtre boo xam ne après xam nga ñi ci topp ñëpp bëri na ñëpp d' accord man dama ko félicité côté bu ne ah. Mm-hmm. après Gris doo ñëw woote waat gars yi dable ñëpp champion yëpp dem daje fa. mu doon affaire bu nice ñu woote waat TFM xam nga champion yëpp daje. xam mu doon affaire bu rafet. ñëpp benn cause la boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex comprendre nga ñun ñëpp pour làmb jàgg la rek donte booy ñaa moo fa teewoon wala Gris Bordeaux moom kenn teewal na fa ñëpp donc parce que mbër yi bëri nañ xam nga tey kuy wax mbër yi ngay waxal doo wax sa pour pour moyen da ngay wax xam nga pour ñëpp quoi loolu la woon quoi mais newul dara xam nga mbër yi moom fu ñu daje ay doomu ndey la ñu dañu traayé woon te après xam nga ku ne dem donte da ngeen ne ci contrat lamb jëm moo leen boole benn trente quarante minutes. après bu jeexee jeex na uh-huh. noonu la demee. Uh-huh. Uh-huh. mais kon nekkul la tafaatin uh, bi mystique bi la doon sóor wala dafa sóor mm. booy bi moo tax demul quoi. non non non mooy li ma la wax rek lu ma ci mën a jaaxal wala lu ma ciy diital wala lu ma mën a def rek ma bi sa plan sa plan d' entraînement nu nan lay demee euh, ñaata séance ngay entraîner par jour. bon des fois ñu am deux séances par jour des fois am benn séance en tout cas ñuy maintenir suñu forme xam nañu donc ñu demee ba jàpp date bi nag ñu génn a organiser ci biir xam nga voilà. ñu dugg ci biir combat bi bu baax a baax mbër gis nañ la sa benn sortie nga ne combat bi par force xeex am ci lu tax. non xam nga làmb ni nga koy wax ak ni ko nit ñi déggee. Mhm. xam nga bëre door ouverture bi moom foo jaar faayit lay nekk bëre door la. nit bëre frappe la ñu wax. boo bëggee bëre simple grand yi fa fii mbappat yaa ngi fi nga dem ci. mais bëre door moom toujours moom fuuyee koy ubbi voilà loolu mooy boo bëggee xeex nga bañ xeex mbër yëpp la muy combat tafaatin muy combat keneen ak keneen noonu la làmb dóor di demee. mais gars yu bëri nee nañ tafaatin ku bëreeg moom faaw nga xeex ah. noo xam nga xeex bi euh, sometimes nga ñëw indi fight des fois doo ko indi ça mooy li ma la wax rek combat bu ne ni ñu koy pare sa combat boo ñaa lu mu laaj. lu mu laaj rek. ñu ngi ji ñu ngi ci loolu. lu mu laaj instant bi non lu mu laaj wala bëri lu mu laaj mënu ma la ko wax du ma la ko wax. Ah, lu tax maa ngi ciy liggéey ak ñi ma war a liggéeyal. en tout lam la mm, ma koy ñaanal wér di ñaanal suma bopp wér. di ñaanal ñëpp wér. ñu egg ci làmb ji ak jàmm ak salaam arbitre soufflé ko. kenn ku ne xam ni ngay def kenn ku ne yaa xam ne tawjee sa bopp bu jinax bu suur boobu en tout cas maay préparé wu maay préparé wu ak suma ay coach. voilà. nee nga combat bi par force xeex am ci mais mais mais man li ma lay laaj mooy que est-ce que xeex ak càppaacoli gii di Boy Niang euh, wóor na. ndax gis na gis na ñi xeex ak ñoom ñëpp jëlee wuñ ci lu leen neex. bëgguma ñuy yàgg ci ci ci kooku li ñu war a mën a wax bari na quoi du noonu. bien vrai que moom laa war a dajeel. combat waaw mais il faut il faut ñu wax ci moom nag. non si hmm. si si loolu bokk na ci li yëkkati man tam xam dama nekk di pare te booy ñaa laay pare. xam nga en tout cas li ma la mën a wax mooy bëre la. bëre dóor la bëre dóor kuu yi moo koy ubbi pour bëre bi mën a am ku bañ xeex bi nag da dem ci bëre simple bi waaw noonu la demee. kuu yi moo koy ubbi xeex moo koy ubbi. waaw mooy bërëb bépp muy sama combat combat keneen ak keneen waaw bëre dóor kuu yi moo koy ubbi. pour bëre bi neex. kon mën nañ jàpp ne combat bi mën na commencer ci xeex mais mën na terminer ci bëre. mu ngi noonu Mm-hmm. waaw noonu ba léegi rek euh, ñu continuer ki nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, Tapha Tine Tapha ñu gis Boy ñaa moom tamit mu tendance la parce que Boy Niang kuy bëri moom ku nekk da nga wax ah, mu ne dafa bëgg ngeen corps à corps cinq minutes avant ngeen di jàppante. Ah, loolu yaa ko wax. moo ko wax waaw ah, loolu moom dégguma ko ko quoi. déggoo mu ne nag dafa bëgg ngeen bëri ngeen. xam nga xam nga inter vidéo yi dañuy bëri quoi du vidéo yëpp nga mën a séef. Mm-hmm. moo ko wax alhamdulilah. waaw mm-hmm. su ko waxee. alhamdulilah sant yàlla. su ko waxee pare nga pour affronter ak moom. 5 minutes tàng jër bëre dóor moom da ngay pare lépp. calculer bi. parce que man noonu laa def. man damay xeex <clears throat> damay bëre. Mm-hmm. loolu moom Sénégal yëpp moo ko xam. Tafatin nag ku koy woo ci xeex moom xaw ma nan lañ koy waxee naar ya nan. woo nga naar ci guuxum soow. woo nga woo nga lébu ci lakk jën ndaw sërërëri. noonu la demee nag. Euh, Tafa arbitre boo ñaa ku nekk xam na ni muy bëri day def déplacement jam génn. Mm-hmm. gauche lay def jam génn. Mm-hmm. arbitre soufflé mu def noonu da ngay dox da ngay dox topp ci kam wala da nga koy xaar. waaw yow wax nga wax ji jëpp. ne nga kenn ku ne xam na ni muy bëree <laughs> kon sant yàlla ginnaaw xam naa ni muy bëree alhamdulilah. dama dama bëgg xam. ndax da nga koy topp wala danga nga koy xaar. xam nga tey. Uh-huh. Boy Niang xam na kuy Tapha Tine. Uh-huh. Tapha Tine xam na ku kuy Boy Niang. kon yow xam nga kuy baax mu ngi siifur sumay vidéo. Uh-huh. combat bu mu def. siifur naa ko moom tam combat bu ma def jombul ne mu ngi ci kaw stade bi di ma xool. kon xamante nañu. voilà mais Tapha su ma déggee ni ngay wax est-ce que nekkul dangaa jox cër booy bu ba mu ëpp. non da koy jox cër kay. ah bon koy jox cër parce que champion la mbër la loolu ko moo ko may fii mu egg si dem ba bëre ak ñun ñoo ko jiitu ci làmb. ko ci bëre dañ koy. mais est jox cër bi jox cër bi ba mu ëpp du nekk pression ci yow. non non man amul lamb buy nekk pression ci man bu ma amee luy nekk pression ci man dama la ko wax damay arrêté suma carrière dem defi leneen mën naa defi leneen lamb bu ma toogee ba muy nekk pression bi la non. Euh, amoo benn pression ba nga xamante ne bi non buy wax waxu ay pression man xaw ma loolu. waaw mais mais mais tamit dama lay laaj yow xam nga man boo mu chiffré suma ay combat xam nga ma bu arbitre soufflé naka laay def. war bi suuf lee nooy def. ah yàgg nga si pour samay combat. waaw mais eh, tamit mais ah, tamit nettali ci gémmiñu borom la dàqee. loolu laa la ci may tafaatin ngay waxal muy laay waxal kay xam naa ko bu baax. kon leer na. mais nettali olof Ndiaye dafa ne tungu ni du teew ñuy natt ci ëkk. Ah, yaa ngi ah. nii toog maa ngi toog da bëgg ma waxal la. leer na mu ngi noonu. loolu laa la ci mën a may exemple. Boy Niang xam na kuy tafaatin tafaatin xam na kuy Boy Niang mu ngi may suivre maa ngi koy suivre. ñu bari nee nañ tafaatin moom mooy euh, favori ci combat bi. est-ce que loolu tamit nekk lu diis ci yow. non nekkul lu diis ci man favori moom xam nga waxal nañ ko fi ku nekk. Mhm. waxal nañ ma fi ay combat yoo xam ne damay ñëw nekk outsider ñëw gagné. Mhm. combat boo xam ne dañu may def foo favori ma ñàkk ko. Mhm. champion yëpp lay dalan ah. champion du monde ni Barça ni Royal xam nga. ni champion roi des arènes bi nekk Sénégal et tout dal na fi ku ne. voilà noonu la demee ko euh, ma dégg ko moom tamit ci benn interview mu wax wax ba nga xamante ne bii. Euh, man wax bi daf ma marqué parce que daf ne ci nu foone la yor moom la teg pikin ku nekk dina ci tànk ab kopp jox la te nee na sa kopp ngi ci biir waaw ci nu fonde bu tàng jër waaw mais xam nga ñun ay béykat lañu ñun dañoo xam lan mooy fonde ak cere ak da ngeen xam njëriñu dugub quoi ak laa ak ak laaxu soq sol ay ñoom laaxu bisab lan mooy laaxu soq sol euh, na moyu di tibb fondé. waaw wuyu ma lan mooy. laaxu soq dama bëgg mu ràññatle <laughs> kaas yi mu ràññatle ko bu baax. voilà loolu rek laa am nu ma koy wax. laaxu soq sol soq sol mooy lan. non beneen affaire la kooku il faut nga dëkk Réfane. dëkk côté Réfane quoi wala Jurbel bi nga mm. laa dëkk comme xaw ma. laaxu soq sol non xaw ma soq sol Baay Faal. beneen plat la. Mm. beneen affaire la. Mm. Hmm? mais mais nee na cin li moom sa kaas ngi ci biir. mais moo tax ma ne la xam nga. booy tibb kopp fonde bi il faut nga ràññee mboq la wala soqsol la wala saaño la est-ce que nga. <laughs> sinon yaa ngi wax xeetu yaa ngi wax xeetu dugub yu bari. waaw la xeppoo rek dina dina dina dina tàng sa kaw. waaw loolu daal da nga da nga nga yaakaar ne kaasu fonde bi mën na wëlbatiku tuuru ci kawam. maa la wax loolu du kopp du fonde yëpp la ñuy gis tibb ko de fonde bii kenn du ko tibb di ko jëmale. mu mel ne tamit yéen ñaar da ngeen a bokk da ngeen a da ngeen a bokk dëkk ci benn côté quoi yéen ñaar yëpp ñëpp ñëpp yéen ñaar ñëpp yéen yéen a bokk bawol bi quoi côté bawol bi waaw noonu lay demee sport moom xam nga day boole rek day gën a neex promoteur bi nga ciy boole aussi dëkk promoteur bi tamit dëkk bawol muy calis moom muy 100 pour cent bawol waaw gis nga reporter bi lay interview dëkk bawol jéena kon ñëpp dañuy xaptu si rek ñëw stade stade bi fees del jaajëf champion ñu ngi si suñu njeexantalu émission euh, tey bu amoon kàddu ya nga xamante ne bii kàddu yu mujj yooyu sànni lan lay doon. waaw di la gërëm d'abord di gërëm sa équipe bi di nuyuwaat Pape Thialis promoteur yi waaw di sant Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp daal mbas mi na fi jógee xam nga activités yi démarré waat wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañu jaaxle nañ vraiment ku waxal dëgg ku ne. xam ne dëkk bi metti na ci côté mbas mi trop nañu jàpp xam nga état bi gën a oyofal daan yi ci kaw comment dirais-je askan wi parce que heure bi bu jotee xam nga taw yi wàcc yi ku ne yàkkamtee ak sa xam nga boo xoolee day day metti trop franchement wax dëgg yàlla franchement nañu gën a oyofal kii daal tegi tegi yi ñuy teg doomu aadama yu kaaw dëgg yàlla voilà. jaajëf looy wax waa Leewtoo TV. waaw Leewtoo TV ca kanam rek di leen ñaanal jàmm ak salaam ngeen dem boo xam nga yor télévision yu mag a mag yi maa ngi leen di ñaanal lool. mais mais mais bëggoon naa benn question bala may dem tamit sa diggante ak Thialis lan la lim la tëgg bëri na torop. waa mais xam nga Thialis moom yàgg nañu ko wax dëgg yàlla xëj na meeram yaayam sax laa jëkk a xam wax dëgg yàlla ni moom xam nga bu may supporté vraiment fii ci Baobab. yaayu caalis dina si bor mu ngi noonu et ma déggoon baaw te yàlla bu ñëwee tey fët li rek vraiment dama ciy kontaan teg na ma yàlla may ma ndam mu ma yàlla na ma yàlla may ndam wax ne jigéen wu ma quoi wax dëgg yàlla parce que promoteurs yi bari nañ donc mu topp ma depuis 2018 bu ma jógee ci bii mu jox ma bii kon sant yàlla la quoi maa ngi koy remercier bu baax a baax di ko ñaanal xam nga gudd fan moom ak njabootam di ko ñaanal promoteur yëpp waaw di ko ñaanal aussi suma suma suma famille yëpp ah di nuyu aussi suma jabar ak sumay doom ak suma góor yeeg xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu daal di nuyu sama boy yi aussi tey champion yi nga xam ne med naa lañu jóge ñëw muy mbay gu yi ak champion yi dëkk bawol yëpp nga xam ne tey bu tafaatin amee combat ñoom ñëpp ay jóg mu ñoom zàlloo ñoom mbay juuf xam nga ñoom Modou Awa Tine xam nga ñoom Sall Thiaw champion yu mag yooyu ñoom Baye Badou Soum Ili Soukey xam nga ñoom Gunda xam nga ñoom ñëpp ñëw ci ginnaaw Tapha xam nga loolu damay neex ay ñoom Ndiak Sarr champion yu ñoom Ngel Jon xam nga ñoom ñëpp nekk ci ginnaaw Tapha Tine xam nga maanaam daal vraiment neex na ma. mais sant bi teel na sant bi teel na. non xam nga xam nga am na lool. occasion la quoi nga nga nga wax ko. nga ko voilà noonu la demee. mais tamit may ma benn question rek mu mel ni combat bi taxawal ko jafewul woon quoi yéen ñaar mel ni da ngeen a xiifante woon. non jafewul woon jafewul woon. parce que ci une semaine Thialis taxawal combat bi voilà mu ngi doon parce que ki ko bëggoon la quoi parce que booy xool moom combat am passé moo ko teg teg suma combat kon waxtaanaat du du jafe daal bi mu ñëwee waxtaan ak Thioune papa Thioune ak El Hadj mhm. comme man la ñoom laa jox suma kàddu man dem leen wax ak ñoom rek xam nga saa bu ñu paree. ñu laaj la ne la booy bi arrangé na la nga ne waaw. non keneen ak keneen sax xam nga ñoom bu ñu teg combat dañ lay tegal ay quelques lutteurs. donc comme que moom moo nangoo ba bu rek man moment boobu man tam damay nangu quoi. vraiment. loolu moo tax combat bi pour mu taxaw méttiwul woon. non méttiwul woon wax dëgg yàlla méttiwul woon. waaw franchement. Mm-hmm. jaajëf champion. Aces nuyu naa la Mbaye Babacar. yàlla yàlla dolli jàmm. amiin jaajëf jaajëf. <laughs> jërë ngeen jëf suñu mbokk yi ñu doon topp fii ci Leewtoo TV li moo nekkoon entretien bi ñu amal amaloon ak ki nga xamante ne bii moom mooy Tapha Tine le géant di client ba nga xamante ne bii nag xamagul fu mu koy wàcce ndax dafa dugg ci rapitub Samba Law sama gars yi ñu ngi leen di dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon ak beneen champion. dugguma ci benn rapitub Samba Law bi. bu ko fi wax non non non non champion duggoo ci rapitub Samba Law bi mais yaa ngi ci nga client boo xamagul foo koy wàccee. dugguma ci benn rapitub Samba bi loolu laa la mën a wax. mais jël nga client jël nga avance. Tafatin ngay waxal. waaw Tafatin laay waxal. mais jël nga avance. waaw nga xamante ne bii ñëpp ko fi bàyyi nga jël ko champion yow tamit. jërëjëf maa nga doon tëj nga may yàqal kontaan naa ci <laughs> yàlla yàlla dolli jàmm ok di jaajëfal bu baax a baax sama équipe bi ma àndal ku ci mel ni Yacine caméraman ak euh, sama chauffeur bii di Modou Mané merci beaucoup waa ki nga xamante ne bii mooy Ousmane euh, moom tamit euh, suñu monteur bi ñu ngi koy jaajëfal moom tamit Mansour Fall cant ak ngërëm ñel na leen yeen ñu doon topp fii ci Leewtoo TV beneen yoon ak beneen invité jaajëf xaar ma ñëw jàpp na ko waaye mais ça va dara su ko bëggee. waaye yéen. yéen a ngi ko ko wax yéen a ngi ko wax. mi ngi miir mi ngi miir jàpp